ak ko fekk di sunu baay ak sunu tante di ziar madame yi hmm, waaw hmm? di ziar doom yi waaw après madame yi ah la liiru waxal loolay lan la liiru amoon. c'est quoi ça mais après madame bi rek la. c'est quoi ça ah madame yaa ngi lay dégg dañoo après madame bi mën nga ko jëlee lu ne. loolu mooy tekk la liiru waxoon day jaar c'est pas clair. booy yow da ngay nekk booy génn ndey sa. am par góor. magal yow yow da nga mënoon attaqué mais dinaa fayu. loolu loolu dañ ci ñëw ayca. ayca tey ñu fekk la kër Balla Gaye 2. muy tudd doomam. ku xam buur muy yëngu ci làmb. Hmm. sa diggante ak Balla gitu. Gaye 2 yaakaar naa ne kenn du laaj sa diggante ak Balla. Simba man ak moom relation bi ñoom mooy relation murit ak mbokkum taalibe parce que man mënuma am de relation yoo xamante ne que dafay bàyyi wu ci jigéen wala ci xaalis wala man ku ma bokkal suñu tubaab rek bëgg naa la. te moom dañu mës toog di waxtaan suñ tubaab ba ku nekk jooy kottu morom. Mm-hmm. ma xam ne kii. li ma yëg lay yëg. Mm-hmm. néew na ñu déggal téléphone wax waxi parce barke Cheikh Mouhamadul Moustapha. Mm-hmm. bu ñu waxee toujours ci sëriñ bi li ma sëriñ li ma. te loolu yàgg na nag ça fait. bu ma juumul ëpp na douze ans donc on a une relation bu saine këram gii defe naa ne bi mooy ah, troisième fois ma ñëw yàlla seere na donc kon bari ma fi ay tànk waaye daal jàpp gi ma ko jàpp mooy bëgg mu bëgg Seexul Xadiim mm-hmm. te dañuy faral bu amee bis da nga koy tàkkale ba ñu bari dañ naan neexoo ko mm-hmm. da nga ko bañ mm-hmm. ñu bari boo déggee loolu waaw fay ah, xam nga Balla Gaye de dama wax ci benn ay sorte yu bari moy Balla Gaye 2 ne mérite pas de disparaître parce que Balla Gaye dafa bokk ci pilier yi té lamb Sénégal Balla Gaye 2 bokk na sur les lutteurs les plus vendus Balla Gaye 2 bokk na sur les lutteurs yi yi ëpp li ñuy jaay kon warul disparaître subitement té suñ ko encourager won ci yoon bi mu jëm Balla Gaye 2 du defar retour yaa man yaa kii déedéet biñ ko xoolee gis ni que ça va pas dañ ko ni ça ne va pas boole ko mokke ko nag ndax xam nañ ni lakkat la boroom jom la. liiru jaan mi xaw na fee xëm. waaw yaa ngi attaqué lu ne yàq na ma ko. Mhm. mais Balla Gaye 2 jël na message bi positivement. Mhm. il a tantôt compris. Mhm. dem liggéey. diggante Balla Gaye Tapha Tine quatre-vingt-dix cent des Sénégalais croient man bokk moon ci ñu gëm loolu. ndax lan. parce que li nga doon waxee moom ñëpp gëmoo waaw waaw non xam nga euh, Balla Gaye est te perte noonu combat bi catastrophe lay doon. Mhm. te amoon na benn longueur d'avance ci Tapha Tine mooy mës na ko daal. Mhm. donc saa buñ signa signature ba génn dama naan bu tafaatin changé wul mentalité bii mu yor su ko yóbboo làmb ji ñu daan mm. wax naa ko ñaata mm-hmm. s'il ne change pas sa mentalité mm-hmm. te Balla Gaye dire bi ma gis bërki dem muy Balla Ndiaye mm-hmm. neewoon naa ko bi ngay bëleeg tafaatin da ngaa reewoon waaye léegi guddi yi ñu toll tembe da ngaa xamadi koo ko wax Balla Gaye si baax Ah. jaaroo sa xel mi newu fi wàcce si téléphone bi. Hmm. yi ngay xalaat lépp xam naa ko. Ah. Hmm. Hmm. dafa réewoon bi mu dëjëk ca Fatou mais léegi daa xamadi. mais xoolal ba léegi dafa gën a am doole. dafa xamadi lu muy waaj. lan lay pare. lu mu bëgg. kan lay sóor. du ñooy lan la te ba pare toogaay bi yàgg dina jël combat jël combat lan la buur lan la luy xeeñ lan la. xam nga mag mag xaa déggoo li ma wax. liy xeeñ. Simba lu muy xaar. waaw bu ko neexoon dem France vacances yi. waaw mbaa mu dem New York. waaw. waaye jàkk ji ci parcelle bëgg na fi duggaat mbaa jàkk jee ci jàmm gën. moom moom may déggee wéy am buur. jërëjëf sax <laughs> léegi yokku naa sa garaat tuddee naa la abu dollar. jeex da ngeen a jubóo. <laughs> sama papa la yow. xam nga <laughs> dama ni woon beneen ultime confrontation. Balla Gaye mais mais buur gëm nga combat Modou Lo ak Balla Gaye mu taxaw gëm nga ko. amati man man ci làmb je ne dis jamais jamais. ay milliards euh, ba ay millions lu mu mën a am. ay millions. Mm-hmm. makka deux millions bu fanaanoo seen kër jàmm du fa am. da ngay yàkkamti fajar gi xar ba nga xam foo jëm. te wóor na leen diggante diggante yaa oustaz ak Simba. Mm-hmm. gàtt gàtt gàtt trois cent millions dina fanaan passé. Hmm? trois cent millions kër gu mu fanaan jàmm du fa am. gis nga bu ñu naxantee. cent cinquante millions nga yóbbu waaye Modlo, Moko, moo ko est un sportif de haut niveau. Mhm. Modlo Lo dafay vivre à travers son art mooy mhm. làmba. Mhm. Balla Gaye di dund à travers son art muy làmba. du ñu ay ennemi ay dawkatu dépasse la ñu. pourquoi nga bëgg privé Balla Gaye taxaw fee ne empereur Modou Lo roi des arènes ngal leen bu leen bëri. ndax lan yaa ko fi oh mhm. oh ay booy suñu booy su booy la trois cent millions kër gu ma fanaan jàmm du fa am xalil mhm. maanaam et puis dadul benn bu logique bu am dalil mhm. tey Modou Lo keroog boobu aji màkk laa ko ne kuy aji màkk doo doo amee bor ceer te Moodu aj na tawaaf na. Mhm. umra na. Mhm. daw na diggante Safa ak Marwa. dem mhm. Musdalifa. dem Baqiya. ba noppi amee bor. ajam nangoo gul. man mooy bor ba. Ah. Ah. Balla Gaye doon <laughs> ay pour luy naaw a neex a sànni <laughs> jërëjëf Abou. ay Abou doon Abou dañuy xuus jëm ci le 24. non ah,

modlo su beure ba bay modlo a plus besoin de bëre ak Balla Gaye mhm. man ma la wax lay mën bu hmm? barke alxuraanu karim modlo bu beure ba bay dan Balla Gaye 2 bu dee du tan mhm. amin si mhm.

Mm-hmm. maintenant sportif sportifs mm-hmm. ne s'attend pas au contraire. Mm-hmm. si toutefois tu deviens le nouveau roi des arts. mais nous sommes le 24. même si tu 2 le monde beaucoup ko dem. est-ce que tu sera le nouveau roi des arts? Ah, le 24 lay ah loolu daal le 24 lay leer gëm naa ko kay waaye le 24 lay leer baas baasi sulli gëm nga ko yow. Ah. gëm naa ko kay. nit ngi déglu maanaam li mu rayante ci carrière am ba yegg si fii ba bëreeg titre roi des arènes moo tax ma gëm ne war naa mën a doon roi des arènes. yan argument face à face à bari na. comme Modou Lo mës a bëre bu mel ni Siteu ci làmb. fooy fooy bàyyi ku mel ni Balla Gaye mel ni Gris Bordeaux mais ba tey moom su daal leen sut ci taxawaay. keneen la est-ce que loolu c'est des arguments suffisants. te Siteu un face à dama ni ba muy ba muy dégg xarañ. waaw daa ba pat de maa ngi koy wax sànq. ba muy dégg xarañ la xeere woon kenn mënul ci moom dara. waaw ba pat na jamono di dox mu aj màkk ñëw dégg yaa oustaz. Mhm. gën a xeere Siteu bëgg na def benn exploit boo xam ne lamb dootu ko fa tugg ah, loolu dëgg la moom te loolu mooy li am te mooy chose aussi normale mm-hmm. Siteu veut devenir un roi des arènes mais Siteu ne veut pas battre Modou Lô mm. ndax lan bëgg na jël couronne bi yóbbul ko waa jàmm gën mais bëggul daan Modou Lo. ndax lan. Hmm? Magan. Ah. keroog yaa ngi woon te signature de contrat ah. ay wax ah. nga ci xaalisu làmb lañu la ngénte. Magan ci xaalisu làmb lañu la naan dundale. gis nga Modou gis nga Siteu. qui est plus près. delloowaat ko. delloo naa la question bi. Modou Lo est le plus près. waman Cheikh ginnaaw mhm. mooy expliquer. nga yaakaar ne diggante le voilà le 24. si dama la fi ah, changé un mois nangam 4 jours pour nga jur fi doom sax. ba pare buur ba maanaam maanaam yow li ngay sañ a wax maanaam da ko wax Ama Baldé Modou Lo coow na waa xam nga du sañ wax. Ah, mooy je je veux tout simplement dire la vérité gis nga laam makan suba gennal waxe ci nu la nexe warna si c'était en football dañ koy toléré mais pourquoi pas ñun lamb ñu bëgg nek ay sauvage ba ko wax ci lamb ci façon bi nga gëm ñu genn saga sa avec la complicité de certains de nos confrères mais est-ce que raison là..? mais buur man yendu naa cybercriminalité ba tey. ndax booy yii. yendu naa section de recherche ba tey. yàggul dara sax ndax booy yii donc soo mënee jël nit ne ci man nga doon xool ba bëgg li ngay def. Mm-hmm. ne ko xam nga diw mooy la xaw ma ko. Mm-hmm. nga ne ko diw mën na la nangam bu ma saaga yaa ma waaye nag lépp xaj na ci man. mais buur. yaa jaboote du buur. aca wuyul Adama Diarra comme ni ko Makan waxee. Ama Balde dañu gis ñu gis façon de communication boobu. loolu Balla Gaye léegi exemple. donc surtout selon internation bi nga xam te ne moom nga koy waxee nga koy waxee. nit ñi dañuy jàpp ne benn instant saboté la foofu la ko nit ñi yóbbu. selon internation bi ngay demee. Mm-hmm. mais au vrai sens du mot est-ce que du source de motivation selon sa communication ci ñoom. voilà moom la war a doon ah. ci moom Siteu. dafa nekk benn source de motivation sur la personne. mais est-ce que source de motivation la ci au fond. jara kuy dajeet mutloo soo nelawee say bokk du nelaw. jara mutloo c'est mutloo. il est unique dans son genre. dama leen di gétt gu Ama Baldé mi ëpp sañ-sañ dugg. jëlee fa dara. Hmm. gétti gu ma seen mi dàq bëri ci àddina. Ah, dugg amu fa dara. Hmm. gétti gu booy ñëng mi ëpp ay pexe. Hmm. dugg jëlee fa dara est-ce que tarkindaay mën nañ fa am dara damay laaj. mais nag làmb amul sport damay laaj. sport amul logique de. sport amul logique. dara damay laaj. sport amul logique. mais li ci si laaj. da ngay laaj. Ah, foofu kon ñu def fa point d'intégration. dara ma laajal la. waaw ñoo ñoo.

moko ko explosivité moko gëna résistant moko gëna paré mais comment hmm. Modou Lo bu perte combat bi day yak xaalisam dans l'avenir hmm. Modou Lo yii muy bëri yëpp liggéey na scénario bi depuis 2017 2018 dix wallahi avant mo jël Siteu laa carrière ni le la ci visé hmm. Siteu Sa Omar Kane Reug moo di il suit sa logique. ca booy ñaag Ama Baldé ñu ko dafa dressé benn plat. dem liggéey ko. ba pare nag gaa ñëw leen. waa léegi xale bi la naan nañ sànnante xeer te ngaa bub xeer. balaa ngaa fori xeer mu toj sa bopp. magal. sumane takbir la takbiir ngay naan allahu akbar ma loolu diina ju bes tàq la <laughs> tabax yak ju bes tak ci barkeel jël peer ba def ko naayim ñom masir ba yore kees yu jàkka ji ñom assurance ñooy root satala lay ay ñom lay laay gor ñoy lal basan yi waaye ooy papis dans tout ça ak lu xew waaw laaj papis waaw du laaj du bataille psychologique damay laaj du psychologique bataille psychologique par rapport à la maa ngi ñëw ma xaw ma la. ah xamoo ko yaa problème. yaa problème. fii. waxa ñu nax di jubbal de ñun. waxa dëgg ni fukki mudul. waaw ak ni mu bëggee lam. waaw yaa quelque chose lu xew. Hmm. Hmm. man ñu ko wax. voyage bi barki démb la yàggul. Hmm? problème dafa am pour. man ay source may nga problème. Ah. makat ne mbir mi dessiné woo bu dee borom xel xel mm-hmm. mm-hmm. lan moo xel kii cloche mais absence bu Papis mën na indi ci làmb Modou Lo est un professionnel ah, bu grand njuga ñëwul woon sax lu yàq ci li muy dem def dara d'accord nga combi booy kii xarañ la woon kii du loo la <laughs> kële mbër la woon kii athlète la fi làmb toll daf ko dépassé pour aspirer au niveau international yi gars yi def defatu ko xalaatu li gars yi xalaat de tey Siteu gëm na ni mën na daan Modou Lo soo ko laajoon tey ci waxee ak ku laay taal trente wala quarante pour cent yaakaar na ko ci mystique pour daan Modou te Mystique gëmul te si te te Modou Lo gëmul ni hmm. lu dul entraînement hmm. ak wow koŋ ak contact na ci suuf seeg joor ji daanul si d'accord nga combine d'accord nga combine le mot combine nga man seytaane la man la génnoon naa fi wax lu mel noonu gars yi tàggat waaye xam nga tax ma avancé ah. saa yu si ma daane Modou Lo est dans l'obligation ah. xam nga man rajo yi may sama ndigaay <laughs> mais si naa kaa faire très attention. Ah. Tarki Ndaay maa ñu ngi ci ah. pimpi sa xarit mi ngi lay nuyu pimpi. pimpi mi ngi lay nuyu. la ma ne pimpi mi ngi lay nuyu. pimpi mi ngi lay nuyu. pimpi sa gaan. mu ngi ci jàmm fépp mi ngi ci ah, jàmm ne ma buur du jàmm gën ñoom Fobere ñu ngi ci jàmm ñoom ñëpp ci jàmm Fobere eh, mais mais daa ma yee fitna dama bëgg a yee fitna ñoom ñëpp ci jàmm dama bëgg a yee fitna daa daje yow di la ruube Fobere sama xarit mais makan makan makan yéen dafa mel da ngeen ragal buur ngeen koy attaqué mu toog ngeen ne ci el booy di la attaqué loo ci wax makan abu non non wala nga jënd glace mais tamit ñii samay dama <laughs> ayca kontaan nañ ci yow. jaajëf